Bienvenue sur Salam Vision.

Thank you.

Thiam Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la mairie de Thiaroye-Kao, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur d'ouvrir cette cérémonie d'installation du nouveau maire élu et nouveau du conseil municipal de votre belle commune, en ma qualité de représentant de l'État. L'État qui nous représente tous est naturellement partout chez Mais vous, M. Mamadou vous êtes chez vous. Et c'est bien parce que vous êtes, et bien parce que vous chez vous, c'est population de Kibéta que vous avez procédé au choix de représentativité de votre commune. En élisant ceux qui en tiendront maintenant les résultats et en présideront désormais les décisions. Soyez remerciés de vous être acquittés de votre devoir civique de manière certainement juste car démocratique. J'ai l'honneur, chers élus, de vous installer bientôt dans vos nouvelles fonctions. À cet égard, je me permettrai, car c'est mon devoir, de vous donner des exhortations et des conseils d'écoute attentifs et constante des populations, de rigueur et d'engagement dans le travail, au service de votre communauté, de probité morale et de respect des lois dans toutes vos décisions. À ah, monsieur le maire élu, tout particulièrement, je lui dirai qu'il lui faudra écouter les délibérations de son conseil municipal qui l'accompagne et en suivre les préconisations dans une gestion concertée et non solitaire. Dans cette tâche dure, car faite toute exigence et de rigueur, mais exaltante car elle met au service des vôtres, l'État sera à, votre, à de son comme il est normal et de bien entendu, pour vous accompagner dans votre bonne gestion de la commune et vous aider à avoir plus et mieux les moyens de vos ambitions. Je vous réitère donc, monsieur ici l'engagement ferme et irréfragable de l'État à vous accompagner en toutes circonstances, à vous suivre lorsque cela juste, mais aussi à vous précéder sur votre chemin lorsque ce sera nécessaire. Ces pas qui seront les vôtres, mais aussi les nôtres, sont la seule illustration qui s'impose de notre coopération naturelle, État et collectivités territoriales, au service exclusif des populations. J'ai bon espoir que ce partenariat nécessaire entre l'État et votre commune sera précieusement entretenu au bénéfice exclusif des populations et d'une amélioration continue de leur cadre de vie et de recherche d'opportunités pour dans tous les domaines. Nous avons cet espoir justifié au regard de la composition du conseil municipal de djidah et la personnalité de celui qui en est à sa tête, le nouveau maire élu, monsieur Mamadou Gueye. Monsieur le maire, de grand écrivain et homme d'État, Chateaubriand, a dit pour être de son pays, il faut être de son temps. Monsieur le maire élu, cher Mamadou Gueye, vous votre temps. tout en ayant mérité de votre pays. De par votre formation et votre parcours, en effet, vous êtes inspecteur principal des impôts et domaines. Après avoir été diplômé de l'École nationale d'administration qui forme les grands serviteurs de l'État. Ceci dans la section impôts dont vous avez été major de votre promotion. Nous escomptons donc que vous serez un maire dynamique et proche de la jeunesse. De votre commune car vous l'êtes aussi Proche des femmes, des seniors et à l'écoute des conseils et avis de tous, dans votre commune qui a le plus grand électorat du département de Fatick. Il y a beaucoup de défis à relever ici à Djibitar et sur quasiment tous les plans. Aussi, beaucoup d'espoir sont portés sur nous. Et sur les nouveaux conseils municipaux élus, je félicite et encourage aussi, pour changer le visage de notre grande et Monsieur le maire élu, vous êtes titulaire avant cela d'une maîtrise en sociologie obtenue avec la mention très bien à l'Université Paris. Cela augure de votre part une prochaine fine connaissance des strates de population et de la sociologie de votre commune pour assurément mieux répondre à leurs attentes. Depuis septembre vous étiez le chef du centre des moyennes entreprises de Dakar 2. C'est là une position précédente qui peut vous permettre Nous avons aussi le ferme espoir d'être à l'écoute du pouce économique de votre commune de Djidé et de booster les potentialités d'affaires, de commerce et d'entrepreneuriat au sein des différents quartiers qui composent la commune de Djidé Une fois de plus, Monsieur le maire, je vous réitère mes félicitations et vous souhaite plein succès dans vos très prochaines nouvelles à la tête de la commune de Djidé Encouragement et félicitations dans lesquelles je confonds tous les conseils municipaux élus, auxquels je fais un bon mandat. Monsieur le maire élu, cher Mamadou Gueye, je vous invite à vous lever. Monsieur le maire élu, au suffrage universel direct, cher Mamadou Gueye, conformément à la loi, Et en ma qualité de représentant de l'État auprès de la commune de Djidah Thiaroye Kao, je vous installe officiellement dans vos fonctions de maire de la commune de Djidah Thiaroye Kao. Et la Je m'en vais porter la charge à votre nouveau maire député, monsieur Mamadou. dellu di santaat yàlla di àndaat ak yéen di dellu di santaat yàlla di ànd ak yéen di dellu di sant yàlla sant yàlla bi ñu mayee fekke ak tal sant yàlla bi ñu mayee ak tal ba ñu mën a assister tey jii ci bis bi julli di sëlmal ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant way jur nga xam ne lépp ñoom la ñu la war a delloo ñu àndandoo ak yéen ñaanal wayjur yi jiitu àndandoo ak yéen ñaanal yàlla wayjur ci des yàlla yàggal leen di sant yàlla bu baax dim ñu maye occasion ñun ñii ñu tànn ñu biir ay góor tànn ñu biir ay am qualité pour ñun ñu maase jiite suñuy borom suñuy naataango bu nekk sax bu rëy ni ko représentant de l'État waxee léegi ñu war ci bàyyi xel li nga xam ne mooy loi ak règlement yi Sénégal amee waaye surtout en tant ay way ngëm ñu war ci bàyyi xel suñu borom yàlla nañ ko yàlla defal saa su ñu fàttaliku ñi nga xam ne nekkoon nañ ak ñun. yàlla dogal su tey bi fekku leen ñu bàyyi xel particulièrement soxna Fatou Ndiaye Ndëpp bi nga xam ne conseiller municipal la woon fii ñu gis ñëpp ñuy santaat nag yàlla di ñu boole ñëpp ñu nekk tey ji benn njaboot en tant que maire xàmmeetuma bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak ci bokk ci beneen en tant que maire ñu ma fiy gis mooy samay frère samay sœur samay yaay samay rak yoo xam ne dañu war a àndandoo boole suñu pas-pas liggéey ngir population bi de Thiaroye Kaw exclusivement en tant que maire di invité suñu naataangoo yëpp nekk ci même dynamique boobu tey jii day am nañu chance ñun conseil municipal de Ndiarème Kaw ndax yàlla boo ñu tànnal bis tànnaluñ ko suñu bopp bu nekk àjjuma nekk bis bi tuut ci bis ñu ëppati ñun tey jii am chance dem julli di jumaa soog a ñëw fekk cérémonie man day jumaa ji ma jullee muy sama jumaa wu quartier Lansar imam tey dafa mel ni ñun la doon waxal bu fàttali ñu ci xutbaam ne dina dégg ñuy wax ñenn ñi di wax naan am na loo xam ne fii lay def lu ci mel ni politique mu dugg mais am na ñuy wax ne politique fii lay des demul alaxira man ak imam de gëmuñu loolu ginnaaw ñu koy def fii la ñu nekk te luñ ci def ñu àtte leen lépp lu ñu def ci fii ak feneen dinañu ci àtte mu ci politique ak ci leneen. yal nañ ci yàlla di bàyyi loo xel saa su ne waaye tamit ginnaaw bi ñu nàmpatale ci diine dañu nàmpatal ci ay valeur dañuy nàmpatal ci ngor dañu nàmpatal ci jom dañuy nàmpatal ci fulla dañuy nàmpatal ci fayda dañuy nàmpatal ci bàyyi suñu xel ne bu ñu tànnee ci biiru ay nit ñun gënuñu fi mënuñu fi dàq ñu fee jàng ëpp ñu fi xam-xam yàlla rek la soppi toog kon ñun ñëpp commencé ko ci man ñuy bàyyi xel ñii nga xam ne ñoom ñoo ñu fal te ku nekk si ñoom mën a nekk fii valablement man it en tant que maire mu war a bàyyi xel ni yéen ñi ñëpp kenn ci nekk mënoon a nekk fii tey di takk étape am ngeen xam-xam bi am ngeen mën-mën am ngeen taxawaay waaye yàlla mën na ko def man fas yéene nag ànd ko ak yéen du ma leen wan mukk ne ute nañu benn anam ndax ute wuñu xalaat mu leen wan mukk ne bëgg naa def lenn loo leen àndul ndax damaa bëgg dama bëgg ñu waxtaan ñun ñëpp ñuy bàyyi xel population bi de Thiaroye Kaw wax naa ko dinaa dellu si waat xam ne duma ko ma ko waa ma xam ne mooy ay conseil ñu wala ñun ñëpp population bi de Thiaroye Kaw nekk si xalaatee ni maa ngi jàdd lu lu toll ni tarafatal ay nit ci li ko pour mën a doon na doon sama rak na doon sama doom na doon sama jabar dinaa ko bàyyi xel ku nekk ci yéen it bu mu am gerte mukk fekkente ni jël nañu yoon bi ñu war a jël te mu gën population bi de Thiaroye Kaw yi ñu ci xool Fapal loolu na ci xool ñu ñu fal ndax bëri woon nañu bëri woon nañu de liste yu bëri la woon juróom-ñaar la woon ci liste yooyu amaana nañ leen sax ñun sax bàyyiwuñ ci woon xel yàlla rek moo ko defee noonu ndax moom moo xamoon ñu war a toog ci tey kon loolu bu ko dee bàyyi xel ñu nga ci jiitu yàlla boo leen suturaal suñu tànk ñu ko teg ci tegu maa ngi sant ñëpp nag. maa ngi gërëm ñëpp maa ngi delluwaat ci suuf leen wan ne man taalibe kese laa bëgg a doon. di sant nag ñi nga xam ne tey def nañ déplacement bi ñëw fii commencé ko ci préfet ak ñu mu àndal ñëpp di sant aussi ñi nga xam ne ñoom nekk ci maire bu fekk leen ko yoo xam ne ñu dara seen xel di wax ne dinañ ànd ak yéen liggéey doo ak di sant aussi. ñi nga xam ne dafay jël l'argent bi tey jii ñëw ñuy suñuy mbokk ci deret wala ci boole di suñuy xarit di suñuy naataangoo di suñuy collègue ñenn ñu jóge ci bërëb liggéeykat dañoo tey ànd ak ñun waaye aussi di mbokk conseil municipaux yi nga xam ne fal nañu leen ak ñi nga xam ne nekkoon nañu ci liste te yàlla dogalu ñu fal leen ñu ngi bàyyi xel ñun ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di maase ak yéen ci ñaan yàlla mu bayfal ñu yéen ba fii ñu toog ak juróomi at yii ñu jëm def ci lu kenn mus ta def waaye buñ gis suñu bopp mukk yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu bañ a gis suñu bopp ci dara yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu fàttali ko ay jaam yu ñàkk solo la ñu ko yàlla defalee ci sutura yàlla mën ñu defal ba chaque fois ñuy xam ne ay doomu aadama la ñàkk solo ñu ñuy xaar ëllëg ñu war a rendre compte lépp ñu def ñu ngi leen di ñu ngi kontaan nañu coordinateur ki mooy coordinateur parti bi 2014 ba léegi ki mooy coordinateur say-say am national ki mooy coordinateur bi moom la ñu Mamadou tegal ci suñu kanam ñu ànd ak moom di tey nag jamono di dox di dox di dox di dox day tey ba Modou Gueye nekk ci mairie bi ñu lay laaj tey jii ban mbégte tey nga am ak ban yëg-yëg tey nga am ci. waaw kon salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu Mati Gueye di nuyu sa équipe bi di wax tey mbégte bu rëy la parce que lii du hasard liggéey la donc doon ko liggéey yàlla dogal tey ñu jël ndam bi li ñu ñaan yàlla rek yàlla na oyof si kawam xam naa ne Modou Gueye fédérateur la Modou Gueye fédérateur la ñëpp la fédéré ñëpp la àndal ku ko topp rek moom di nga liggéey incha allah. mais tey jii li ngeen liggéey gën a taxaw seen si ngeen liggéey est bi ngeen liggéey gis ngeen ci seen bopp yëg-yëg bu baax baax wala lan moo ci manqué. waaw c'est que xam nga équipe la ñu am. CCN. dana am équipe. ñu wóolu suñu président. wóolu ko jox ko suñuy kàddu. donc loolu bu doxalee lii rek. donc satisfaction la pour ñun ñëpp. parce que ci ginnaaw la ñu toog ci ndigal la ñu toog. donc lu mu ñu wax rek ñu def ko xam naa duñ duggal si trop. moo tax lii ñu doon ñaan yàlla am na nañ ko moom mooy maire Djiddah Thiaroye Kaw léegi nag ñu ñoo war a takku nag liggéey ànd ak moom jàppale ko ci maire bi incha allah. waaw léegi yéen boo leen ko jàppalee ci loolu donc loolu sax moo tax mu wax la ñu ñoo war a encadrer suñu président suñu maire parce que am na ay euh, ay ay ay kii campagne bi mu def am na dem déglu na askan bi xam na seen tawat te am na lu mu wax aussi daf ko bëgg a def donc yàlla moo yor yëpp nag mais moom na jege askan bi rek na jege population bi na jege ñëpp xam ne moom maire Djiddah Thiaroye Kao la léegi commune bi moo ko tax a jóg donc ñun ñoo ko war a xool engagement yu mu jëloon au niveau de la campagne engagement yooyu yooyu yëpp ñu jéem ci respecté au moins quatre-vingt pour cent fàttali ñu tur bi. Euh, Alassane Wan laa tudd dëgg Touba Pikine nekk coordonnateur national euh, convention citoyenne neneen. jërëjëf merci. lay nuyu di la ziar euh, su koy turee la tudd di responsable boo xamante ne tey mi ngi ci parti bi macha allah liggéey ci parti bi lu mucc ayib ba nga xamante ne moo nekk CFA mooy nekk responsable CFA ma duggee teg ko fa tey jii ñu lay laaj tey ban yëg-yëg nga am tey ak tey nan la la bisu tey di def tey. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu waa télé bi di ziyaare ñëpp tamit di nuyu ñi fi teew ñëpp tamit nga xam ne dañoo bàyyi seen liggéey ñëw teewal si président Modou Gueye ci passation des services bi nga xamante ne moom lay def tey ah ñun ñëpp nag ñu di ko ñaanal taxaw ci ginnaawam téye yéen bi nga xamante ne moom la fas yéene yéen ñun ñu téye ñu fas yéene ànd ak moom jàppale ko ci liggéey bi nga xam moom la fas yéene liggéey ci Djidah Thiaroye Kaw ndax euh, Djiddah Thiaroye Kaw nekk na loo xamante ne nekkul benn quartier nekkul ñaari quartier commune la boo xamante daanaka moo gën a rëy ci Pikine mu nekk 66 quartier kon loolu benn nit mënu koo liggéey ñaar nit mënu koo liggéey équipe bi nga xamante moom la àndaloon 2014 ba nëgën si di ci gërëm bu baax tamit waa Benno Bokk Yaakaar mi nga xamante ñëw ànd ak président Modou Gueye di liggéeyandoo ak moom li nga xamante ne nag mooy sunu mébét ñun mooy kanam Modou Gueye dem ba nekk président de la république te yàlla mën na ko yàlla nañ ko yàlla defal di wax ne tamit liggéey bi nga xam ne moom la ñu ànd ak moom depuis boobu ba tey ñuy ñaan liggéey bi oyof tool tool tool ci boppam ñu ànd koog moom tamit lépp loo xamante ne mébétu doomu Djidda Thiaroye Kaw la lépp loo xamante ne mébétu Djidda Thiaroye Kaw la Modou Gueye ñu taxaw ak moom ci président que loolu moo tax looloo tax nit di nit di xëccoo maire looloo tax tamit nit di xëccoo sa commune te yàlla dogal na ni bëgg na commune ji da caaroy kaw te min fi daan def démb ak barki démb saa potaa mu nekk maire kon am nañ yaakaar bu nekkee maire dina fi liggéey loo xamante ne mooy gën a am solo kane lim fi doon def ñu ngi nuyu ñëpp nag di ziyaare ñëpp tamit sur Salam